asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam fedd liwaat sunu yaakaar ci seyxuna ahmadul xadim ñoo ngi ñaanal sëriñ tuba cheikh mahamadul muntaxa mii toog suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram dolli ko kattan ak wér ba naal yii nga xam ne naalal na ko lislaam suñu borom bàyyi ko fi ba mu àggale yépp te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi ginnaaw kàddu yooyu nag jox na ndigal taalibeem bii mi ñu toog dend ak moom di Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ko ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yàlla ci alquranul karim te dëkk ci dëkk bii di Touba ak li ko wër ndigal lu leen jox ñu fas ko yéenee jottali bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi ñun ñëpp ñu maase déglu Serigne Mamor moom Cheikh Mahamadul Fadal. auzu billahi min asaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain bokki taalibe yi bokki jullit yi noo ngi dollee jégglu kàddu yi ñuy yëkkat ci kanam sëriñ bi te ndigal teg nu ko noo ngi leen jottali ay kàddu yu bàyyi ko ci moom jëm ci mboolem njabootu sëriñ Touba waaye jëm ci mboolem jullit yi muy kàddu yoo xam ne baaxoon na ko jottali saa saabu jamono lëjee walla ay xat-xat am mu yàgg ko li ngir xettali bindeef yi xettali taalibe yi dellu leen ci yàlla mu wax ni dafa bëgg noonu ñëpp nu maase dellu ci yàlla tuub tuubal ko jégglu ko raxas sunuy xol ba mu set wicc jéggalante sunuy bàkkaar ci suñu diggante lu waay man ci alalam nga dimbalee ko sa sa sa nawle suñ noppee nag li nga xam ni moom la moom la daan digal naka jekk te jëli ko ci sëriñ Touba muy def tawasul ci jàng alxuraan ak xasaayit ñu fag fasoo ko fas ko yéene def altine jiinu jëm te bala ñu ko def foofu ñu jaar nee nañ fi jaar raxas suñuy xol ba mu set wicc ànd ak yéen ju sell wóolu Serigne Touba ak jébbalaat ko suñu bopp ak jaar fa nga xam ne fa la daan jaar buy jiñ wala mu ñoddi te moo di ñaari sàllam yooyu nga xam ni wax na ni ci lay ci ci lay jiñe ci lay ñoddee ndax moo ni daf ñi wajal bii xidmatul aajil amin muy xasaayit rajo rajo naa minel mawla bii xayri matlabin wa fas naa bii fi kul def fi jël bi muy alxuraan kon ñaari yooyu ci lay giñe ci lay ñoddee moo tax mu xiirtal ñu ñu fonk ko baax a baax a baax jàng ci jàng mu sell moo xam ne amul benn caaxaan bañ cee am defee ko defin woo xam ni musu musuñu musuñu ko def ci benn mel ni njàng mu dul mii waxtu wu waxtu wu diglee dafa dafa war a mel ni tey la tey tey la ko digle ñaari sàll yooyu nag boo gisee mu dina ci xittal moom sëriñ bi dafa xam nu sëriñ bi toll ci ñaari sàll yooyu buy alquran ak xasaayit ndax isaa katabtu aw xaraatu bari na ci xasaayit yi lool te jàpp nañ ni bu ne isaa katabtu bind alxuraan a tax bu bind xasaayit a tax bu ne aw xaraatu bind xasaayit a tax jàng xasaayit jàng alxuraan tax kon ñaari sàll yooyu lam cay lam cay teg ku ne xam ne ni lu mu am ba noppi la isaa katabtu aw xaraatu jaa illa yamaa yu xaqiqu rajaa isaa katabtu aw aw tu xarfaa xustu mu nan tuudahu saakal xarfaa aw xaraatu harwala iblisu fawran mahaman taxawa la yooyu mooy li nga xam ne kon moo tax mu xetal nu ci alxuraan ak ja ak ak ak xasaayit mu wax ni nag dafa bëgg buñ buñ buñ raxasee xol yi jàng ko nam nam nu ko digale nu bokk nu bokk nag fas jàmm ci réew mi jàmm ci lislaam bi jàmm ci àdduna bi ndax nee na loolu bu ñu ko defee te defee ne ko ni mu nu ko digale ci sell ak ak woyof lépp luñ ci sàkku mën na mën nañ mën nañ koo am te loolu àdduna bi soxla na ko réew mi soxla na ko àdduna bi soxla na ko ñu bokk ñaanal kilifay yi kilifa yi kilifa yi diine yi bokk ñaanal jullit yëpp bokk ñaanal taalibe yëpp suñu borom def jàmm ak salaam benn ay bañ bañati dugg ci ci réew mi bañati dugg ci ci àdduna bi buñ noppee nag moom ci boppam nu bokk ko teew ñaanal ko boobu ci boppam ci xasaayit yi ak alxuraan ji ndax eh, moom sémb na sémb yoo xam ne sémbal ko Serigne Touba ñëpp gis nañ ni yi tijjim ci am te sémb yooyu su àggee mën na si naa wax ni suñ tax ak àdduna la ak àllaaxira te mooy lii mu sembal Serigne Touba kon nag moom itam bu ñu beral ko ñu beral ko wàllu boppam ñaan yàlla mi nga xam dara tëwu ko ci barkab Serigne Touba mi muy liggéeyal yàggal ko fi wéral ko ba naalam yooyu yi nga xam ne moom la naalal Serigne Touba te te bëgg koo ànd ak moom yàlla suñu dimbali ko may ko kàttan may ko wér defal ko jàmm ba mu àggale ko njàng mi nag bokkut ak njàng yi nañ ko defee lañ koy defee fu waay nekk ci biir ci biir réew mi moo xam jàkka la moo xam jumaa la moo xam daale kaamil la fu fi waay nekk na nga yem fo mën ngaa fa nga nekk nga jàng ko foofa ku mën a ñëw ci pénc pénc bi nag baax na muy jumaa biir jumaay Tuubaa ak li wër jumaay Tuubaa ku fi mën a ñëw baax na waaye fu waay nekk ci biir réew mi ak bitim réew na nga xam ne bis boobu sëriñ bi def na ko muy bis alxuraan alxuraan ak ak xasaayit te jublu ca ñaan ñaan yàlla ñaan la bindee ñaanal réew mi ñaanal lislaam bi loolu kàddu yooyu la sëñ bi nañ noonu nañ ko jottali bu fekkee su ko defee ñi nga xam ne ñoo ñoo koy jàng fu waay mën a nekk te suñu na may la kàttan loo leen mën a di jàppalee eh, ci ci ci ci ci luñ jëfandikoo ci bëccëg bi foo ko mën foo ko mënee rek foo foo toll nga indi ko foofa moo xam ci jàkka yi la moo xam ci jumaa yi la moo xam ci daara yi la biir jumaa ji tam waatu ba ak li ko lépp fu waay mën a def ay tiraanga indi ko ci ñi koy jàng yaa ngi koy jàng yéen a yem ku ko nga jàngalu nga jàngalu alxuraan jàngalu ay kaamil ni ko sëriñ bi diglee ak ak xasaayit euh, berndeel ñu koy jàng neexal leen jox su ko defee yool ba agsi ci yow kàddu yooyu la suñ boo xam nañ ko wax li ci des sëñ se sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Seex Abdou Latif dana ko jottali gën a leeral ndax buñ toogee fi sëriñ bi lan bëgg a waxee suñ suñ suñ suñu taalibe ak sunu su su sunu sunu woyeflu duñu ko may waaye sëñ bi daal li mu jublu mooy ñëpp xettali ko ñëpp am jàmm ñëpp tegu ci aw yoon tegu ci siraatal mustaqim ñaari kàddu yi mu daan wax itam ñu fas ko yéene mooy sant yàlla ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom doon xéewale ak soññ suñu bopp ci jéem a jëfandikoo ay digalam bàyyi ay tereem loolu ñaari kàddu la yoo xam ni ñaari kàddu yu gàtt lañ mu wax ko waaye bu ñu ko toppee mën nañ ci jëlee lépp di sant nag ñi nga xam ne ñoo féer ci jumaa ji muy Mbaye Mouhadoumou Khidma ñi nga xam ne ñu ci biir jumaa ji lañ ko ñi ciy jàng ñoo leen toppatoo ñu ngi nii toog fekke nañ fekke nañ jotaay bi sëñ sëñ sëñ sëñ Basiiru moom moom sëñ moom sëñ Abibu moo jiite waa rabitul madaarisul alxuraan fii Touba ànd ko sëñ Xaari Jaxate ñoom ñoom itam naka jekk bu sëñ bi santaane rek seen seen lépp dañ koy bàyyi nekk ci njàgg bi sëriñ bi neen mi ngi dañ ci soññ kàddu yooyu la sëñ bi ko jottali ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ñaan suñu borom mi xam dara tëwu ko yéen ji am ci bindeef yi am ko ci taalibe yi am ko ci jullit yi sans borom defal ko ci lu kawe njortam ci borom Touba ñu ngi koy sant di di ko gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bu baax a baax nga xanaa dañuy jéem a ndigal rek waaye xaw noo ñemee yëkkati suñ kàddu bi dara lu des lu ñu war a leeral amatu si xanaa ak soññee rek xam ne ndigal li ci jullit ñëpp la jëm rawatina taalibe bi Sëriñ Tuubaa rawatina ñu dëkk ci biir dëkk bi moo xam ne ndigal jib na ndigal nag waxtu jibe jibee la lu rëy lu jëm si ci bindeef yi ku ko xamee noonu te jëfe ko ndimbal loolee sa ndimbal lay doon maanaam ñu fas yéene koo jàppee noonu te xam ne lii itam day njëriñ lu ñëpp daal di xam ndax ñëpp xamandoo nañ ne réew mi laaj na ko fi mu ne ñëpp xamandoo nañu it ne sëriñ bi yéeneem ak jenn ñaanam rek doy na sëkk waaye yéeneem jure yi moo tax mu yaatale ko bëgg jullit ñëpp ànd ko ni ko sëriñ Maamor waxee sëriñ Maamor li mu wax dara desu ci xanaa kay kon nu soññente ji defin wa rek defin bi mooy def ci suñu yitte bu baax a baax ak suñu pasteef te ni wax leer na barab bu nekk buñ daan daje di fa jàngal xuraan nañ fa daje nañ ko fa daan daje muy jàkke yi kër yi Serigne Touba yi ak foofu dajewukaay nekk rek foo xam ne ay jullit mën nañ faa daje jàng alxuraan ci ndigal li itam waxuma dëkk bi waxuma réew mi waaye àdduna sépp la daj foofu ay jullit nekk te dégg ko rek nañ fasoo fañ nekk ñu defee fa ndigal li ndax fu doomu aadama yi noyyi rek bëgg na fa jàmm te njàng mii kon ne xam na ne jàmm rek lay jur ci àdduna sépp réew mi ne da ko soxla lool fii nu ci toll waaye fépp soxla jàmm kon fu waaye bëgg jàmm na fa fas yéene defee ndigal li xanaa liñ ci waroon gën a doole soññee rek mooy wàllu xéewal yi ni ko sëriñ Maamoor waxee fu taalibe bi nekk lépp loo mën ci xéewal na ko def fa la gën a jege ci fu ñu jànge ñu yóbbu ko fa ñi nga xam ne dañoo wër dañoo ne ci biir dëkk wër jumaa ji wala andi ko ci jumaa ji jàpp yomb leen itam nañ ko waaja noonu defe ko noona waaye kenn ku ne jàpp ne lu ñu fi def ci xéewal rek doyut ndax mbooloo mi dana bari te mbooloo mi jàng alxuraan yi ngir ñaan jàmm ci àdduna ñu leen teral rek daa nga ji daa war a yaatu lool te matale kon kenn ku nekk da ci ciy am sa yëgeegu bopp sa soññe bopp gëm ne lañ ci soxla lépp kenn ku ko mënoon yow rek nga def waaye bu kenn ku ne defee la nga man lépp xéewal yi bari rek lay def teraanga ji doy rek lay def am na ko ñëpp waaj waajal danañu am barab bu nekk itam ña nga xam ne lu ñu fa daan taxawu ci yu demee noonu ñoo ko daan taxaw ba tey nañ ko taxaw ndax bu ñuy jàng war naa am ñu taxaw ñiy jàng xéewal yu fa ñëw ñu saytu ko ba jox ko nit ñi nañ leen ko war a joxe loolu itam te jàkk ju nekk am na ay mukallaf yu fay jullee waxtu juróom yoo xam ne mukallaf yooyu mën na ca am mbooloo moo xam ne danañ mën a taxaw jàkk ba xéewal gu fa ñëw ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo noonu itam jumaa ji sëriñ bi wax na waa muqaddamatul xidma sëñ Maama tudd na leen ñu ngi nii toog xéewal yi fi ñëw dana nu ànd incha allahu ba toppatoo ko saytu ko ba mu jaar ci fa mu war a jaar lépp mu delluwaat ci ni ko sëriñ Maama waxee muy jëwriñ ji Cheikh mu Mountakha def ko jëwriñi liggéey bi moom it maanaam jëwriñam yi mu bokkal liggéey bi muy waa rabita bi te sëriñ Bassirou mbakki ñoom nekk nii boobaa ñoom ñoo ngi ci seen ginnaaw lépp luñ xalaat ne mooy jagal liggéey ba rek danañ ñu ko sant te danañu ko def maa maa mu xam ne mu xet maag bokki taali bi yëpp sëriñ Mamor wax na léegi ci ci waxam yëpp nga xam ne alxuraan ak xasida la ñuy boole xasaayid yi nag ku nekk da cee xam taxawaayam suñu am sëtu moom Cheikh Souhaïbou ak taxawaayam bu réy bu mu ci taxawee moo tax sëriñ moor wax na ne ndigal loole àggale na ko ci moom sëriñ am sëtu ngir lañ njàngum xasida ma lépp mu taxawoo ko moom itam bu boobaa na nas nasin wa sëriñ am surtout bu ca xalaatee waxtaan ak sëñ Maamoor ñu bokk ci xalaat danañ ko teg ci yoon mu war a tëddee su fekkee ju ne ña fay jàng alxuraan am na ñu fa nekk ñoo xam ne mën nañoo féete ci xasida yi yaakaar naa bu boobaa itam noonu rek lañ koy mën a defee moom sëriñ am surtout fu muy mën a dajeeg mbooloom fu ñu koy defee it danañ ko leeral ba ba jottali ko bañ mën koo defee noonu noonu rek lañ ci doon jot bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi kon xanaa kàddu yi ciy dolli rek mooy kàddu yi euh, ñaan sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñooy ñëw ci barab yi nga xam ne fi la ñuy jànge ñu ànd ak teggin yi nga xam ne barab bi ñu koy defee laaj na ko ndax li ñuy def ci boppam dafa laaj ay teggin barab bi ñu koy defee laaj ay teggin jublu gi ci sëriñ bi jublu itam laaj ay teggini boppam ñu sàmmante nag ñetti teggin yépp te mooy teggini jàng alxuraan ci boppam ak teggini barab bi ñu koy jànge ak teggini ñaan gi nga xam ne moom la ñu yéene ci jàngu alxuraan bi nga xam ne moom la ñuy def te lu ci nekk dafa ànd ak teggini boppam ñuy ñaan itam ñi nga xam ne dañuy ñëw tey indi ay daara ñu yàpp gone yi nga xam ne ñoom lañuy indi ñu xam ne foo taxu leen a jóg xumbeen taxu leen a jóg waaye dañu jóg ngir def jëf jëfe ndigal jaamu ci yàlla ñaan ci sunu borom itam ñu làmboog teggin yi nga xam ne moom la war a àndal ci yar bi ak teggin yi bañ a dàqe bañ a fo bañ a def leen lu koy nuru ñi nga xam ne itam aw jigéen lañu ñoom itam ñu moytu bu baax jaxasoo bi ak góor ñi barab bi am na barab bu ñu sàkk ngir jigéen ñi di fa féete am barab yu ñu sàkk ngir góor ñi di fa féete ñuy ñaan nag bokki taalu bi yëpp ñu war warmal loolu góor ñi bañ a dem ci barab bi jigéen ñi nekk jigéen ñi itam moytandiku bu baax barab yi nga xam ne ci la góor ñi nekk ndax Serigne Touba ku bañoon ab jaxasoo la ci diggante góor ak jigéen te bañ googee na mu ne mi ko bañawoon ne la ko Cheikh Mahamadul Muntaxa mi bañee kon ñi ngi ñaan jigéen ñi ñu ñi nga xam ne itam dañuy ñëw ñu bàyyi xel barab bi ñu jëm ci col gi mu jot sëkk te ànd muuraay yam war a àndal te bu ñu ñëwee itam ñu dem fa war a tooge te yam fa góor ñi ñu def noonu ñëw fa ñu war a nekk ñoom itam te yam fa jaxasoo bañ a am su ko defee ñi nga xam ne dañuy indi aw ñam itam barab bi itam dafa laaj ak cet te it euh, euh, bu ñu sañoon defar gañ fay defar du jur genn yàq kon ku indi aw ñam am na ñu yore ñam yi am na ay waañ yoo xam ne bunt boo duggee danañ la mën a euh, jubbanti nga jëm ca wet nga jëm ca waañ ya soo demee nga teg ko ci loxo yi ña fa nekk danañu ko séddale ba mu àgg te dara du ci yàq yàqu waaye nag sa taamuwuñu kuy ñëw di séddaleel sa bopp muy taqal barab bi yan yi di niin yan yi di taq lu mel ne ay café ak yeneen bu fa jógee mu indi liggéey bu bari ba noppi itam mën a indi ay ngaa gaañu gaañu ndax niinaay bi mën naa indi ay tarxiis te tarxiis bi mën naa indi ay jël te yooyu yëpp nag sëriñ bi tàmmoo ko ci kon nañ sàmmonteeg teggin yi nañ sàmmonteeg cat gi nañu sàmmonteeg col gi nañu sàmmonte sàmmonteeg woor may barab bi sàmmonte itam ak moytu jaxasoo bi bu baax a baax loolu daal mooy ndenkaan yi nga xam ne moom lañ doon ñaan bokki taalibe yi ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi kon ñoo jot altine bii di ñëw lay doon incha allahu rabbi bu ñu xëyee tàmbalee ko ci barabub Serigne tubaab boppam bi muy jumaa ji ak mbooleem barab yi nga xam ne ñoo wër nekk ci Touba ak li ko wër waaye ni ko Serigne bi yaatale fu kër Serigne Touba ne fu jàkka ne fu daara ne te ñooñu xaw a sori mën nañoo daje ca barab booba jàng ko fa na ko Serigne bi santaane ba julli tisbaar jot képp koo xam ne jege nga ca barab booba moo xam nga ne Touba wala beneen dëkk ba ci bitim réew fañ koy jànge loo man ci xiiwal nga yóbbu ko fa la ko tàmbalee ci aw ba ci am ndox lu ci nekk aajo woon nañ ko fa la nga ca mën nga yónnee ko fa te noonu ñu ko waxee ñuy moytandiku dab yi nga xam ne ñoom lañ koy yóbboo euh, ci di ko def ci luy senn ndax niñ koy faral di waxee ci jumaa ji bool yi bu dee senn diw ga dafay faral di taa te loolu bu jaxasoo ak kafe gi mën na faa jër ay yàq yu baree bari altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi weeru tubaab dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru wolof muy altine di ñëw incha allahu rabbi loolu la ndigal lay doon kon ñoo ngi santaat bu baax te ñaanalaat sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram déggloo ñu posté fam te ñu ànd moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.